Sonatel dafa loué 1000 mètres carré dañ ko ko loué 1000 mètres carré orange orange di fay mille francs le mètre carré par an soit 500 francs le mètre carré par an par mois soit 500 francs le mètre carré par mois jaaykatu jën bi sax boo ko loué woon dina la fay lu ëpp loolu Sonatel moomu di dugal di fay Thiès 6 million par année 6 million par année toog ci 1000 carré carrés 1000 mètres loolu lay tudde sarax bu fekkoon appliqué nañ le décret du président de la république numéro 2010 400 du 23 mars 2010 décret boobu fi Sonatel di fayee fi Orange di fayee 6000 francs le mètre carré mi ngi war a fay lu mu néew néew 40000 francs le mètre carré kon ñoom ñi ngi ñuy sar ñi ngi ñuy sarax weer wu at mu jot 6000 francs le mètre carré ca waroon nañoo dugal ci dëkk bi 40 millions lu mu néew néew par année waroon nañ ko fee dugal lu mu néew néew bu fekkoon li ñu waroon a fay fay nañ kon at mu jot ñoom ñi ngi def seeni chiffre d'affaires di yóbbu seeni dëkk bàyyi ñu ci ndóol bàyyi ñu ci ay jafe-jafe dama ni ce contrat là je veux à Orange doit être négocié renégocié et sera renégocié ñun kenn duñu fekk suñu dëkk au cœur de Thiès au cœur de la ville nga occupé 1000 mètres di ñu sarax at mu jot sarax laa wax at mu jot 6000 fli 6 millions francs ca pendant ce temps jamono bu ne accident am ci yoon wi ndax yoon wu bon xale waroon a jàngi oto mbëkk ko ndax booba traçage bu baax sax amu fa dëkk bi lëndëm këris agression am fi je veux parler à la Sonatel ce contrat doit être renégocié et ce contrat sera renégocié je vais être très clair sur cette question CBAO CBAO CBAO mi ngi occupé 800 mètres carrés 800 mètres carrés ñoom it li orange di fay la ñuy fay 6000 francs le mètre carré par an soit 500 francs le mètre carré par mois jaaykatu jën bi sax boo ko luyee woon dina la fay lu ëpp loolu 6000 francs le mètre carré par an soit 500 francs le mètre carré par mois CBAO mi ngi fay Thiès mairie Thiès lu mu néew at bu jot 4 millions 800 la fiy dugal alors que bu fekkoon respecté nañ le décret numéro 2010 400 du 23 mars 2010 nga xam ne décret bi président de la république moo ko signé wax ni ñoom li ñu war a fay lu mu néew néew c'est quarante mille francs le mètre carré par an ñoom waroon nañoo dugal ci dëkk bi lu mu néew néew 32 millions xool leen entre 32 millions ba 4 millions ca booba ñun ñu ngi gën a ndóol suñuy doom gën a nekk ci ndóol suñuy école gën a bon suñuy yoon gën a bon dëkk bi gën a lëndëm këriis cees barab yu bari amuñu ndox quartier yu bëri amuñu ndox loolu c'est un problème boo xam on n'en parle pas dans cette ville am na ci ay quartiers yoo xam comme ay village ci boppam dañuy rot ci ay teen di wuti ndox sonn trop ah je vais m'adresser à la CBAO ce contrat doit être renégocié et sera renégocié je vais être très clair sur cette question mu des EMG boobu nag moo gën a garaaw ñu bëri ne nañ ma bul wax dinaa wax sëriñ Moussa Ka dani murit ñoo ma woo ni ma tawatal te bu ñu woo saw làmmiñay woo xarnu bi Cees ñoo ma woo ni ma tawatal te bu ñu woo moo tax foog ma wax je défendrai les intérêts de cette ville je ne peux pas me taire kenn nit mënu tax a noppi ku dul suñu borom. EMG depuis 2014 mi ngi occupé mille quatre cent trente cinq mètres carrés mille quatre cent trente cinq mètres car Mbaye Gueye EMG. musuñu fay un franc un franc bind naa ko yóbbante nañ ci ñu fay li ñu amal Thiès parce que huit mois huit ans yooyu dañ koy fay mënta ñàkk wax naa leen bañuma ñoom ñu continuer fa ak projet bu ñu fa mën a am mais bala ñuy wax dara bor bi ñu am huit ans yi dañ koy fay lu mu néew néew at mu jot 1435 mètres carrés yi li orange di fay baaxul de mais bu fekkoon dañ ko appliqué ci barème orange bi waroon nañoo dugal lu mu néew néew 8 millions 610 mille par an waroon nañ ko fi dugal envoyé nañ leen nag par wax leen bor bi ñu amal Thiès mu toll ci 68 millions 880 mille francs nañ ko fay suñ ko fayul dañuy jog amul la neen je vais être clair sur cette question maqaama ñëw ci dëkk mille cent occupé 1435 mètres carré di le cœur de la ville ca fayoo loolu nag barke yëggu fa yaakaar naan ci dëkk bi donc loolu bëgg naa ci leeral mu des yeneen benn bi mooy Mikelaan ak coow man maa jël décision am yéene ni Mikelaan fi mu ne foofu du palaasam ñun bi ñuy nekk xale foofu jardin moo fa ne woon G2 moo fa woon dëkk dafa am ay barab yoo xam ne ñépp ñoo ko bokk war a nekk ay espace vert yoo xam ni ku amul xaalisit boo fa demee féexlu li ma gën a metti ci koor gi dama daan génn taxaw sama bureau ma gis mag ñi di dàq koor ñëw ba ci place bi foofu toog ci gir yi toog ci giri yi ca foofu di xolu Cees <coughs> jardin bi nekkoon foofu dañ ko fa bëgg a delloo delloo ñoom ñoom Mikelan ñu signé woon benn contrat 1er janvier 2015 avec mairie de ville bu Thiès ñu renouveler leen ko ci 2019 bi contrat boobu war a dem ci 5 ans mais ci contrat bi dañu wax ni mën naa am rupture unilatérale ça veut dire ñaar ñi séq contrat bi maire bi bu ko neexee génn ci contrat boobu su fekkee benn ci engagement yi benn parti bi respecté wu ko ci engagement bi ci gën a leer mooy xaalis boo xamante ni Mikeleen yoral nañu ko mu toll ci 10 millions ndax gëj na fay waxatuma laak Mikelaan ba ma fa demee ak suñuy équipe la fa nekk ci tilim tilim la fa nekk ci insécurité ak leneen leen daal la mën a wax jël ko engagement foofu jardin public la woon nous remettrons le jardin public qui est là-bas incha allah c'est un engagement que j'ai pris et nous nous battrons pour ko foofu. su nekk ay yu yëpp